Assalamualaikum wa taala wa barakaatu ngi len di nuyu te di len ziyara ñu ngi fi tay ci parcel asini ñew ci boutique Tidiane Al amin. boutique Al amin boutique Tidiane fekk fi administrateur bi muy njiit li di hadji Nooyin Sarr Al amin. nga xamne boutique bi liñ fi jaay da fay delu wacc bi ci walu parfum ci walu ciuray ci walu kurus ci walu sajadak ci walu mbaxanaak ci walu yu mel nonu bo fi duggé dal lepp luy couleur bu bu nga xamné dafa mengo ak ya bi da ko fi fekk te loolu tabarakallah mak ni da nañ ci daj lu nek bu ñu wasan gis suuf su jógee sax marok dañ ci daan def tabarukan tabarakallah daiman waye dañu waxtaan ak mom ci facette bo nga xamné ne moy li jëm ci ziar général te ku tuddu ziar général euh, tuddu talibé yi man na ni moy rencontre bi nga xamné moy lekk talibé ak serignam ci kër gi amul beneen rendez bu gën a kawe ci taalibi ak sëriñam bisu ziyaar général ndax sëñ Babacar radiyallahu anhu 1930 la ko mag ñi ñaanoon ne ko ñu ngi am suñuy nawle yoo xam ne ñu ngi dem ci yeneen i këri diine di gis seeni sëriñ te bu ñëwee dañuy wax ne yéen seen sëriñ kenn mënu ko gis ñu bëggoon nga dimbale ñu ñu man laa gis sëñ Babacar ne leen ah man di jigéen duma ko recevoir waaye rek dinaa leen may at bu jot ngeen taxaw ci penc mi ci suuf ma taxaw ci balcon bi ngeen ma ma may leen loolu li ci des ngeen bàyyi ba ëllëg ndax di wéet ak jigéen man Babacar duma ko man loolu mooy sababu ziar général euh, daayiratul kiram ak daayiratul ahmadiya àndoon ci nag fa tabaarakallaahu di ko organiser xam ne ñoom ñooy ndaw umu umul umul umul dawaayir ñooy ndaw yu ndaw yu daayira yëpp fa tabaarakallaahu waaye nag lu sotti am borom tey dem na ba taalibe bu nekk jàpp nga ne yow yaa moom ziar général kii nag kenn la ci taalibe yooyu nga xam ne ñoom dañu jiite kuréel gu mag ñu koy wax euh, association liggéeyal Mame Maodo li ci de li ci gën a am solo ci li ñuy def mooy wàllu social te ku tudd lislaam rek boo ci génnee social mu jeex kon nag euh, ñi ngi jëm ziar général dimanche le 21 dañuy ñëw waxtaan ak njiitu kuréel gi muy El Hadj Nooyin lan moo waral kuréel gi juddu muy association liggéeyal Mame Maodo. waa asalaamaaleykum Hadji Wilane borom Wilane TV ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di nuyu mboolem say euh, abone yu lay suivre yëpp ci Wilane TV di jiital suñu nuyoo bi sunu sëriñ sunu maam sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour di teg loxoom. ci loxoom nuyoo ak ziaru famille maam Cheikh Seydi xaaj Malick Sy radiyallahu taala anhu yëpp waaye di ko teg ci loxo Serigne Abdou Aziz Sy bu Serigne Sidi Ahmed bu Serigne Babacar nga xam te ni moom mooy responsable moral association liggéeyal Mame Maodo mu tegal ñu ko ci mboolem famille waa kër maam Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu euh, nag ñu teew fii comme ni nga ko waxee rek man la Nohine Sarr Al ñu gën ma xam ci Nohine Al Amin euh, président association liggéeyal Mame Maodo fa tabarakallahu euh, ku daf ñu booleeg Serigne Abdou Aziz Sy bu Serigne Sidi macha allah mu ni ko eh, sëriñ bi man kat dama xalat en tant que ay ndaw bu gamu joté ban taxaway lañ ci wara am mun ma ah, xolal lo len di taxawé nga wax ma mu ni ko ah, xalaatoon naa ni daal bu ay ndox di ko ci gamu gi dina bax mun ma lol rafet na te rafetlu naa ko te may naa ci ndigal waaw ah, lii waral mu judd eh, biñ démé ba gamu mun ma ma ko ndox mun ma inshallah dina ëpp ndox ndax yenen bi ëpp na ndox fa tabarakallahu ñu jàpp noonu commencé ci ndox waaye bi ñuy pare yàlla def na mu ëpp ndox ah biñ ko defee 2018 gàmm gi ñëw macha allah mu baax nit ñi rafetlu ko boobu sax ñi koy def bariwul nit ñi rafetlu ko euh, ziar général di ñëw mu nekka ko ah, papa buñ ko defaatoon ci ziar bi dina baax de mun ma ankay ah, ma ne ko ba boñ ci may ndigal ñu def ko mu ni may naa leen ci ndigal ñu def ko ñu jàppee ko noonu nag ba tey jii suñu yoolu yàlla tey jii eh, ñu ngi fàttaliku même bi année yi nga xam te ni gàmmu Tiwaawan amul ñun ak sunu mbokk Xaaji Maalik Kebe dañ doon dajale eh, di jënd ay ginaar am na boo xam sax ay nag lañ doon jënd ci mbokk taalibe yi ñuy jàppale ñu yóbbu ko Tiwaawan jox ko yenn kër yi pour ñu jàppale ko ko si boobu gàmmuwuñu waaye ku nekk di nga am say gan eh, am na def nañ ko benn boo xam te ni Euh, nag lañ ay nag lañ yóbbu benn bi ay ginaar lañ yóbbu jox ko mbokk yi nga xam te ne ñoom ñoo nekk Tivaouane kon mën naa ne biñ ko commencé ba léegi arrêté ko benn yoon macha allah loolu moo waral association liggéeyal Mame Maodo. jërëjëf Baye Nooyin tabaarakallaahu léegi nag ñu jëm ci association bi eh, ndimbali yi ngeen di def Tivaouane ku tudd bëccëgu ziar général tudd bëccëg boo nga xamee ne bu xat la ndax li ëpp ci taalibe yi dañuy ñëw ci jour bi delluwaat ci jour bi du ñu indi ay matériels yu ñu toggee du ñu indiwaat eh, jumtuwaay yu ñu lekkee dañ ñëw rek fasiyene souffrir di rañu fi nek légui nak buñu gisé ku leen jox añ jox leen ndekki jox leen lepp luñu naan lolu xewal la bo nga xamé nak yaakar na lu reuy la ndax ganu si nga teral leen wul légui nak euh, lu mel lolu ku nek xamné na yombul lan ngeen di xaar comme dimbal amul kenn ku yëngu te soxla ko la dimbale fan ngeen di xaar dimbale ak naka ngeen bëggé ku leen bëgg dimbalé mu dimbale leen ko ndax yeen yeen ngi teral gani sëriñ Babacar si euh, di wax rek comme ni nga waxé parce que gamu ku nekk booy ñëw dangay ngay ànd ak sa daayira wala nga ànd ak sa famille wala nga dem dal sa kër ay mbokk mais bu dee ziar général dafay xat parce que ziar ci jour bi ngay ñëw boo ñëwee daanaka da ngay profiter dem ci salle bi pour jàpp place mën a déglu message kilifa yi kooku doo am jotu dem fenn wala ngay dem di jënd lekk parfois nit mën na yor ci poche am 10 000 francs boo xam te mën na si jënd li mu bëgg mais du am temps génn di jëndi léegi ñu mel noonu nag la ñuy fekk fañ nekk jox leen teraanga yi nga xam te ne moom la ñuy wax taxawu gan yi ñu tuddee ko opération taxawu gan yi fa tabaarakallaahu ak ñi nga xam te ne yàlla dafa téye seen ay cër ñu nekk ci alentour jumaa ji ñooñ itam dañuy dañ leen faral di fekk fañ nekk di yëkkati ay teraanga di leen ko jox ñi nga xam te ne aussi dañoo nekk ay homme tamit parce que ku ne gis na liggéey bu am solo bi ñuy def ñoom it dañ leen fekk fañ nekk te itam loolu euh, Serigne Pape Makhtar Kébé moo moo moo joxoon xalaat boobu parce que dama fa dem bis may waxtaan ak moom ci loolu mu wax ma ne ah waaw loolu baax na mais dee leen ci boole homme de tenue yi fa tabaarakallaahu dépp boobu ba léegi bi mu ñu ko waxee nag ñu duñ ko sàggane benn yoon dañ koy def beneen bi itam comme ni nga ko waxee euh, ndimbali li ci jiitu mooy sëriñ bi moom moo ci jiitu parce que moom mooy njëkk a yëkkati alalam joxe ne leen defal leen ma ci liggéey maam Cheikh Seydi Hadj Malick suñu sëriñ parce que moom day wax ne Seydi Hadj Malick ak njabootam ku mu am rek yaay sëriñam moom mooy njëkk a yëkkati def ci bu loolu jàllee ñun ñi nga xam te ne dañoo bokk ci association parce que dañuy wax ne ndimbal da cay fekk loxoy borom ñun itam ñun ñooy njëkk génnee nooy dina ni am na 100 francs ñu ni ko indi euh, Lamine ne am naa 1000 francs ñu ni ko indi Modou ne am naa 2000 asu ne am naa lii ñi dajale ko dajale ko ba bu ñun fi ñu yem ko defee nag ñi yaatal ko dañuy faral di def euh, bu événement bi ñëwee ñu ni par exemple dañoo soxla 1000 personnes yu joxe ku nekk 1000 francs léegi boo amee 500 personnes yu joxe ku nekk 1000 francs Euh, da ngay am mille boo nee mille personne boo amee 1000 personnes da am 1 million. léegi euh, di gis koo xam ni par exemple moom dinaa man kat damay joxel sama bopp waaye damay joxel sama sama jur bi génn àddina wala sama maam wala sama famille daal di joxe lu ëpp loolu. yooyu som yooyu nag la ñuy dajale ak ñun li ñu am ñu xool lan la mën a réaliser ci lu jëm ci. li ñuy taxawoo gan yi Tiwaawan ñu def ko mooy xool lan lañ ci mën a togg pour gan ñu togg lan lañ ci mën a jënd comme ay fruits ñu jënd lan lañ ci mën a jënd comme ay ndox ñu jënd bi ko defee ñi nga xam te ne dañoo boo yeesalee jàpp toog toog fi nga toog yu bari mën nga ko bañ a soxla waaw loolu moo waral opération taxaw gan parce que gàmm nag dañ koy def waaye ziar général la gën a lañ koy gën a soxla parce que gàmm ku nekk am nga sa dal waaye ziar ku nekk boo ñëw da ngay ñëw sa ñëw bopp kon nag loolu buñ koy def xëy na yomb na yombul parce que bu ñuy wax euh, teral gan taxawu gan kooku dafay laaj moyen moyen yi muy laaj nag moo waral ñi def mille francs mille francs yi ñuy wax jaayante itam di woo képp koo xam ni yëg nga ni euh, li ñuy def ñun. yàlla kese moo tax ñu koy def aussi tamit yëg nga ni li ñuy def lu baax la yëg nga ni li ñuy def ay jullitu yàlla lañ koy jox mooy fekk kuy jaamu yàlla nga yëkkati yow sa ñaq sa alal jël ko jox ko ko loolu yaakaar naa yiw la te itam eh, yiw moom ku la ci woo rek yéene na la yiw moo tax ñu ci woo ñëpp parce que bëgg bëgg nañ mu nekk yiw boo xam ne du yem ñun kese mais si ñëpp lay dem te eh, li ñuy wax ne yàlla ku mu ku maanaam ku mu bàyyi nga jëf rek am na lum la am na lum namm ci yow. loolu moom leer na ndeysaan kon ku ci def sa alal doo ko rëccu ndax jox jullit mu lekk wala mu naan moom yàllaa ko santaane yenent bi am na yu mu ci wax euh, yàlla suñu borom am na yu mu ci wax ci alquran nitu yàlla yëpp am na lu ñu ci wax kon joxe mu lekk moom bul xool nag ki nga koy jox bul xool fi nga koy joxe xoola rek ki tax nga di ko joxe tabaarakallaahu kon bëccëg boobu nga xam ne sëñ Babacar sëñ Abdul Aziz dafa waxoon ni soxla yi ma ñor ci at bi yëpp ci bu ñu ne Komafa baa ngi dugg si Tiwaawan ci laa koy fas ndax pas-pasu bi ak sëriñ loo fa ñaan yàlla mu jox mu jox la ko Euh, kon xaaju nooyin ñu ngi jëm ci ziar boo nga xamee ne que fekk na réew mu jógee ci ay élection ñi euh, changé njiitu réew tabaarakallaahu war a dem ziar léegi nag ban yóbbal ngay jox ndaw ñi ci wàllu euh, du ñu ne ci ziar lay doon waaye ci wàllu citoyenneté lan la ndaw ñu war a def pour gën fonk seen réew ak it gën a mun a liggéey te xam ne liggéey rek mooy li nga xam ne moo mën a fay nit waaye du politique liggéey moom mooy li nga xam ne moo mën a fay nit waaye du wax donc kon ci ndaw ñi nga bokk te ndaw yi tijaan war a doon ci kanamu ndaw yëpp lan ngay denk ndaw ñi fi réew mi toll ak itam gis nañ président bi def ziar ci kilifa diini yi màggal leen jox leen seen worma te peyna na loolu am na ñoo nga xamne nak ñi ngi doon ragal leneen leneen xew léegi loolu nga gis ko tay lan moy sa analyse en tant que ndaw ndaw Tidiane. tey mom tey mom tey fi mu dugal mom xawna doy war parce que affaire politique mom yaakaar ma yabuma sax nak di ci wax waye eh, ci yenn waxtaan su abdu yu ñu déglu rek dama mos a dégg muni nit fi nga nekké ndaw fi nga nekké ndaw. loo def mu rafet boo solee yére mu rafet boo génnee dajeeg sa bàjjen mun la téye bu ah nee na Serigne Cheikh foofu la la maam yàlla soxla maanaam euh, nit pour man ndaw amul waaw parce que responsable du ku ko yanu rek nekkatoo ndaw waaw te sëñ Abdou dégg naa ko mu ni yéen boo leen dee ay ndawit doo leen ndaw waaw mu ni yéen ñi nga bokk Seydi xaaj Malick mu ni boo leen dee ay ndawit doo leen ndaw ba pare itam di waxaat suñu mbokku ndaw yi ne affaire politique yi mook mook jamono moo ànd parce que ñàpp du nee na lu jamono indi dañ koy nangu politique mook jamono ñoo ànd mënut a ñàkk waaye itam ku nekk ni koy defee na nga ko rafetal ba bu ëllëg bu dara xewee doo ci am gàcce mooy ku nekk bu politique ñëwee mu xoolal ki la nga xam ne moom moo la doy moom nga yaakaar ni li nga yow yéene bi nga am ci réew mi kii moo koy maanaam kii la ko yàlla di jaarale si moom mootali ko bu la neexee lépp luy tax mu convaincre nga mu teg ko ci teguwaay yi mu war a tegu def ko wàccal ci terrain ko koo mën a waxal mu votel sa leader def ko waaye nag bu dugg ci yenn gaame mooy jo wax ak ko tooñ koo jotelu dara wala yàq alul jàmbur wala jote ak nit yooyu moom amul njëriñ waa parce que itam li ñuy waxee yàlla moom gis nga nit bu la ñëpp contré te yàlla na mu la jox kenn mënut a fexe ba yàlla du la jox bu ñëpp ànd ak yow te yàlla na mu la jox kenn du tax ba yàlla jox la lim la bëggul woon jox kon nag lu ne rek lu boo koy ut ut ko ci utun bu rafet bu ko defee boo ko amee tamit mu rafet beneen bi itam président Diomaye ñu ngi koy féliciter ci ndam li ko yàlla jox parce que yàlla moo ko jox kenn jox ko ko yàlla moo ko jox ndax nguur day nañ yàlla mooy tànn ki ko neex mu jox ko kon nag yàlla na nekk njiglaayu réew mi yàlla sàmm ko itam visite bi mu def ci kilifa gi Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour def ko ci Serigne Mountakha Mbacké ñun loolu lañ am parce que tey di nga dégg ancien président Senghor ancien président Abdoulaye Wade euh, Macky Sall Abdou Diouf mais déggoo xa ancien xalif général tey xalif général yi seen maam yi wala boog seen way jur yi fañ tëdd seeni i rawdu ku xëy da ngay dem ziyaar ko mais doo gis benn raw du président boo nit xëy di ko ziyaar di yaakaar dara ci di yaakaar dara ci yàlla jaare ko ci moom maanaam seen responsabilité bokkul président nag yàlla moo ko moo ko def mu jiite ñëpp mu jiite xalif généraux képp ku fi nekk moom mooy sa njiit mais itam macha allah ki fi nekk yàlla def na gis nañ ni am na maanaam xam na réew mi xam réew mi mooy xam li réalité réew mi mooy kilifa diine yi nga teg leen seen teguwaay teg leen fi nga leen war a teg bu ko defee itam liggéey bi muy yi muy entamé ak yéene yi mu am engagement yi am ci kanam kilifa yàlla na yàlla mottali ko defal ko réew parce que itam réew mi ak ku fi mënti toog ñun li ñu soxla rek mooy nit ñi nekk ci jàmm am jàmm mbokku julli yëpp am jàmm mbokku réew mi ku nekk xam xam ne da nga am responsabilité ci réew mi te responsable bokk na ci fexe ba ñëpp am jàmm ci réew mi loolu ke la mais affaire politique yi yàggul parce président bi ki fi nekkoon jóge na fi léegi ku yaakaaroon ni kooku dafi sax dem na kii fi toog nii yàlla na fi yàlla bàyyi ba mu def li mu yéenee ak jàmm te mu gën ci réew mi bu jeexalee day dem keneen day ñëw kooku yàlla moo ko dogalee noonu parce que yàlla moo tëralee noonu àddinaam kenn mënu si dara waaw moo tax ku nekk si ñun rek li ngay nekk chaque jour day ko rafetal day ko bàyyi xel loolu moom solo waaw macha allah. Euh, nooy ñu ngi laaj kuréel gi ngeen xam ne moom ngeen jiite muy association liggéeyal Mame bu ñu ko doon natt ci ñaata membre lay war a ak ndax da ngeen am ay représentant ci région yi yëpp wala kurel gi Dakar ak la yam ak itam kurel gi lan moy yéeneem ak nësëram bu weesoo benn nit ci ziar général ndax dafa am yenen bëgg-bëgg wala yenen vision wala fofu rek la bëgg yamalé li nga xam ne mooy yëngu-yëngu. association tay buñ ko doon wax mën nañ ni ëpp na 50 50 membres 100 150 membres presque 200 membres mën nañ ko wax amna ño xam tane membres actifs ah, amna ño xam tane tay ñu ngi nek extérieur

waaye am na yeneen aussi tamit yoo xam te ñu ngi fay xaar xëy na moyens yi koy def lañ amagul mooy am na yéene par exemple tey ñu am lu mel ni daara boo xam ni day association liggéeyal Mame moo koy moom parce que bu ñu waxee Mame Mor eh, wax association liggéeyal Mame Mor war nañoo fexe ba kuñ tudd eh, même ñun bu ñu amul xam mais ñi nga xam te ni eh, dañ leen maanaam ñi nga xam ni ñoom ñoo ko ŋànk ñu am luy jëmmal xam mooy tey ñaan nañ yàlla am lu mel ni daara <coughs> daara boo xam te ni tey mën nañoo am ay ndaw ndaw tijaan wala ndaw jullit bu am sa doom mën koy nit ci daara jooj mu jàng foofu tey am nañ yéene defar lu mel ni ay ay ay teen wala ay wala ay euh, forage yoo xam te ni dañuy xool dëkk yu ko soxla ñu def ko parce que loolu lépp ay xeetu jaamu yàlla la te association liggéeyal maam war na li ko gën a bokk na ci li ko gën a tax li yëkkati mooy social waaw mooy social parce que Serigne Abdou Serigne Sidi Ahmed dafa wax ne yéen daal mel na ngeen mel ni maam maam Abdou rek waaw maanaam di xool fam daan jaar comme mënuñu fa jaar waaye ñii ñi yéene rek di def loolu macha allah. bu fa mel ni boo tuddee base sociale sax tënk nga lépp lépp nga ci biir kon nag yàlla na yàlla may leen ci ndam. ñëw ci beneen point mooy laaj la seen relation yow ci sa bopp ak kuréel gi ak sëriñ Abdoul Aziz Ahmad mi nga xam ne mooy seen buntu ci kër Seydi Hadj Malick euh, damay wax nag moom kilifa la gu naqaree nekkal ndax kilifa goo nga xam ne ko du jàmbat du wax moo gën a yaru ñëpp moo gën a noppi ñëpp. bu la yàlla booleek moom yow yaay comprendre xam ni nga war a àndeek moom waaye sinon rek ni nga war a jëriñoo ci moom doo ko jëriñu ndax dafa am yu mu jët ci maamam sëñ kër Si tekk gi teey gi ak noppi gi léegi lan ngeen mooy seen relation ak sëriñ Abdou Aziz Ahmad mi nga xam ne mooy seen buntu ci kër gi. yow daal da bëgg a yëngal quoi euh, comme li li amoon la fois passée ah sëriñ Abdou nag wax dëgg yàlla moom euh, sunu sëriñ la sunu jur la. suñu xarit la itam waaw waaye defuñu ko xarit xarit nii rek maanaam xarit boo xam ni luñ jaaxal buñ ci ñemeel waxtaan ak kenn moom ñemee nañ ci waxtaan ak moom. ah macha allah moom itam mu nekk koo xam te ni eh, taxawaay waxuma la sax taxawaayu sëriñ parce que lim nekk si ñun ëpp na sëriñ mais taxawaayu bàyyi la taxaw ci ñun tey si ñun association bi eh, ñun yàlla moo ñu booleek moom ba nga xam ni bari na si ñoo xam ni bu ñuy lu ñuy dugg lu ne ginnaaw bu ñu waxtaan ak seen i wayjur day ñëw waxtaan ak sëriñ bi ne ko ah, papa man kat nangam ak nangam laa bëgg a def mu jox la ci xalaatam du yam foofu yëkkati ñaan ñaanal la ne la yàlla na yàlla defal ndam defal ñaanal la itam ni nga ko waxee noonu mu nekk kilifa goo xam te ni macha allah ku naqaree àndal parce que kenn doo xam ci maanaam doo xam lu mu bëgg doo xam lu mu bañ man nag <laughs> dama remarqué ne moom lenn daal la xam ne moom bokk na ci yim gën a bañ euh, mooy góor bu jox loxo jigéen waaw moom gis naa ni. moom moom bokk na ci yi nga xamante ne moom bu dee mën naa ne lii naqari na ko moom loolu da ko naqari même ba ci suñu association bi à chaque fois daanaka bu ñëwee di ziyaar daf ñuy fàttali ne da ngeen di ñëw liggéey liggéey ba sonn am yiw mais boo leen génnee joxanteeg seytaane mu leen xaar si bunt bi boo leen génnee jaxasoo jigéen jox leen loxo bu ko defee seen yiw ba dem maanaam à chaque fois day day day day ñuy ñaax ci ñuy jéem a sàmmonte ak li li li li li diine bëgg mooy fexe ba góor bu nekk yem fi ci góor jigéen bu nekk yem si jigéen maanaam jaxasoo bu bari bi parce que dégg naa sëñ Abdou Alamin wax mu ni sëñ Babacar bi mu tabaxee këram ba pare eh, dafa wax ne bépp góor bu romb fii dem ci jigéen ñi mel na ni sama kaw dënn bi nga jaar ndax bañ gi mu bañ góor ñee jigéen ñi jaxasoo léegi nag góor eh, sëtam bii ci ndakaaru itam moom loolu la wax mu ni mën daal góor ak jigéen bi ñuy jaxasoo di joxante loxo bëgguma ko te à chaque fois bu ñu dajee ak moom da ci insister lool diñ ko diñ ko diñ ko bañ loo itam mu nekk koo xamante ni euh, li ñuy doyee kilifa yëpp macha allah mu ngi ci moom parce que kilifa li ñu koy doyee mooy boo ko soxlaa gis ko boo ko soxlaa gis ko mooy tey boo amee problème wala boo amee loo soxla conseil wala xalaat di nga ko gis wax ak moom mu wax la lim lim ci xalaat wax la bu doon moom lan la ciy def ak ba mu fa tollee lan la ci defoon mu jox la solution nga dem sa yoon te itam nag di wax ni moom moo ñu ko dénkoon Serigne Sidi Ahmed parce que dernière ziar dernière dernière gàmmu Tiwaawan bi góor gi ñëwee association bi dañoo ñëw ziar ko parce que jour gàmmu lañ ko doon ziar bi ñu paree si suba sa ma ñëw fa lendemain gàmmu ma ne ko ah maam ñun de mu ñëw nañ sëñ Abdou moo ñu recevoir mun ma waa ah macha allah noonu baax na mun ma yéen dee leen wax ak sëñ Abdou sëñ Abdou di wax ak man. mu ne dee leen wax ak sëñ Abdou wax ak xam nga loolu junj la maanaam yéen yem leen ak <laughs> wax leen ak sëñ Abdou rek moom muy wax ak man ah loolu nag wax dëgg yàlla ah, avant loolu jàpp nañ ko waaye loolu it tax na ñi gën ko jàpp nag waaw ah, itam euh, kilifa moom loo koy doy rek mooy kilifa bu taxawu njaboot te itam macha allah mu ngi ci parce que xeebul daree njabootam nag wax dëgg yàlla xeebul daree njabootam ñun moom dañoo jëlal sax suñu relation ak moom waaw ah, ndax moom lu ne la si ñun macha allah te euh, mu ngi noonu daal moom daal yal na yàlla mottali ay yéenam si waa bi ba pare itam lu ñu xew ñun association bi moom mooy njëkkati mooy njëkk a yëkkati alalam def si xam nga loolu en ñaax la parce que koo xam te ni bu neexoon toog ne li ngeen def sama maa ngeen ko defal du ma ci def dara mais mo ñëk yëkkat Allah def ci pour wan leen ni kat li ngeen di def baxna ma ngi ko and ak yeen parce que sëñ Abdou Aziz Alamine neena na Babacar ne mbolo bu and ñom kesse ay ndaw dalul xelu sëñ Babacar ñu ne ko lu dal sa xel mu ni mbolo bu and mbolo bu ay mak kesse and dalu xelam mbolo bu ndaw ay ndaw kesse and dalu xelam li dal xelam moy mbolo bu and di mak ak ay ndaw mag ñi ño am ño am xel di xalat ndaw ñi ño am katan di jëf te sëñ a nee na ndaw du muus lu ëpp atam kon nag il faut ñu am yàlla may ñu am ay mag yoo xam dañuy ànd ak ñoom di liggéeyandoo ak ñoom ci loolu am nañ ku mel ne suñu yaay Mama Thiondi aussi ci association liggéeyal Maam Maodo bokk ku mel ne suñu tata tata biige ay tata fatsi ak ñeneen ak ñeneen ñoo ñëpp itam macha allah ci magu association bi lañ bokk di ñu magal fa tabarakallah am naa ñu jeexale rek lu jëm ci ziar général bi ak jumaa ji man ku may invité rek mu xam kilifa nga moo xam suñu jëmee ci xew-xew yu mel ni yii dinaa la wax ne looy wax ci jumaa ji ndax kuy dem rek war nga mën a am loo somp pour jumaa ji ndax tey xalifa bi sens la waaye dëgg la ñun taalib yi fekkee moom génération suñu sens la kon occasion bi waruñoo raté nañu fexe ba booy dem Tivaouane looy yóbbaale na ci jumaa ji bokk bu ko defee rek liggéey yu ndaw ndawaan yi des ak yeneen lu mel ni assainissement yu mel ni ndox ko war a accompagner ak électricité beeg ak déménagement bi war a am kër yi ko war ñu war leen jumaa ji projet bi ci ginnaaw moo ëpp sax jumaa ji kon loolu yëpp nag euh, taalib yi ñoo ci war a jiitu keneen kuy ñëw doog a ñëw nooy lan ngay soññee taalibe yi tijaan yi di déglu yëpp même ñi nga xam ne bokkuñu ci kuréel gi te war a ñëw ziar lan la ñu war a def pour jumaa ji. ñaanal rek sunu kilifa gi mooy Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour xam man moom yàlla dafa def dama am cofeel bu particulier ci moom loolu nag maa ngi ko jëlee ci Serigne Abdou Azalam parce que dama mës a dégg Serigne Abdou mu wax mu ni eh, Serigne Babacar Sy Mansour ku nekk xaritam rek da ngay nekk xaritam moom Serigne Abdou. ah man nak mo bëgg nek nekk xayut Abdou motax mo jël sëñ Babacar Sy Mansour rek yalla def ma am am ciofel nak ci mom bo xam tan ni na waaw ñu sopp ko lool nak wax dëgg yalla waaw ñu sopp ko lool muy itam eh, li sëñ Abdou waxon sëñ Abdou dafa waxon mu ni mu ni ki nek khalifa khalifa ci kër gi wala ki nek khalifa neena boko xébé sax bu dugaloo ko sa ñaan sa ñaan du du sa ñaan du nangu waaw léegi comme ki nga xam tan dang ko xép ci sa ñaan bu ko ci sa ñaan du nangu koku tay ki ci yàlla booleel muy ñun suñu sens muy sëñ Babacar Sy Mouhamadou Mansour parce que nag comme sama classe gi ay ma Abdou mosuñoo bokk ak ñoom jotaay dañ leen di dégg rek xëy na bi ñuy bi ñuy nekk xalifa bu ñu amee ñaaraat ci la ñuy toll sëñ Abdou Alamin lañ xaw a miin tuuti parce que sëñ Cheikh daawuñu ko gis euh, tey ñun kii suñu sens dëgg mooy sëñ Babacar Sy Mouhamadou Mansour ah jumaa ji mu woote nii nag xëy na moom moo woote waat waaye woote maamam Seydi Hadj Malick la feddali parce que Seydi Hadj Malick moo moo taxawaloon jumaa ji tey suñu maam Abdou Aziz Dabakh jaar na fi eh, eh, sëriñ Mansour borom daara ji jaar na fi sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum jaar na fi eh, sëriñ Abdou Aziz Alamin jaar na ba tey moom chance am la waaye itam ñun ko suñu chance la comme ni nga ko waxee lenn rek moo ñu wax parce que njaboot lii taxawaaye mooy bu kilifaam bëggee njaboot gi fexe ba li kilifaam bëgg mu am loolu nag ñun sa loolu lañ tombeel mooy tey sëñ Babacar Mansour jumaa ji la bëgg mu taxaw ñun suñu yite yëpp yëpp yëpp moo war a nekk ñu fexe ba li bëgg ci jumaa ji ñu def ko mooy réaliser projet jumaa ji waxuma la sax projet jumaa mais yeneen projet parce que gis nga diwaanu maam bi moo ko móol te yooyu yëpp macha la ah di wax rek yàlla na yàlla mottali jumaa ji te itam tamit mbokk taalibe yi ñun taalibe yi ma nee taalibe sama classe gi moo tax ñun taalibe yi ñun ñu gën a bàyyiwaat xel jumaa ji rek xam ni itam jumaa waxuma la sax jumaa Tiwaawan mais li yàlla wax ci tabax néegu yiw néegu ci tabax néegu yàlla nga xam te ni ëllëg fay bi kenn xamul nu mu toll waaw waxuma laak nag kon ñun ñi nga xamante ni eh, jumaa ji dafa nekk dafa nekk ñaar mooy dañ koy def te yàlla tax waaye dañ koy def itam ngir sunu sagu xadara xadara bi nga xam te ni foofu lañ yàlla boole macha allah muy tuyaawoon ah di woowaat ñëpp rek ñëpp gën ci bàyyi xel parce que itam ku nekk boo amee sa juróom bañ ko xeeb boo amee sa ñaar dërëm bañ ko xeeb parce que gis nañu fi jaar yëpp ay juróom-juróom ay ñaar dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm moom lañ dajale dajale ba mu jur ay millions waaw te loolu lépp nag tuutiwul parce que jëf moom bu benn defee mu tuuti waaye bu ñu bari defee mu nekk lu rëy waaw di woowaat ñëpp rek ñëpp ànd ñun ñëpp ñu jàppale ko jàppale ko sax mooy jàppale suñ bopp parce que li muy doxal tey mën nañ moom la mag ñi daan doxal toogaay bi mu fi toog moom la fi toogaay mag ñi toogayoon li sëñ Abdou Lamin waxoon mu ni suñ ni fi mag ñi nekkoon rek lañ fi nekkee kon nag macha allah mu gis nga mu ngi noonu ànd ko ak njabootam yëpp macha waaw ah, li Serigne Habib waxoon ko rek ne ko moom moo doonu taaw yi ah macha allah kon nag na yàgg nekk sen baay ah ñu ne ñoom it ñu yàgg nekk suñu Serigne incha ah mbokk yi kon mi ngi mel ni jataay bi ñu amoon jeex na ndax eh, waxtaanee nañ kuréel gi waxtaan niñ ci toll ak fi ñu ci bëgg a dem yëpp waxtaanee digganteem ak kilifa gi ñu wéeru ci moom waxtaanee itam jamono fi mu ci politique ak ci wàllu parce que ku tudd ndaw rek foo nga indi politique ak diine ñaar yooyu ke mu leen te itam ndaw lu nekk am nga droit wax ci waaye nag wax ci ak responsabilité ñëw nañ ci wàllu jumaa ji nga xam ne xalif général de Tidiane moo ko sumb sumb bi réyoon lool bi ñu koy sumb ñëpp jaaxle woon ci tiit ci naan ah liggéey bi rëy na de mook moom mook moom ba mu yegg si fii kon nag nañu fexe rek ba daaneel liggéey bi bu tër ko rendi ko mu féetee boor ñu sumb leneen incha allah euh, xaaju na dañu lay bàyyi rek nga tàggatoo ñu tëj émission bi waaye li mu bëgg a rek mooy ñun ñi nga xam ne ay taalibe lañu nañu gën a bëggante gën a soppante tey rafa ragatalante gannaaw ndax bëri na taalibe bu am lu ko naxari ci mission bi wala ci kër gi te sa mbokku moo la ko teg kenn amu gudd lu la naxari onk ñu xool ko teg boo bokkul pas-pas ñi nga bokkal pas-pas rek ñoo lay loolu nag war nañ koo xoolaat am temps di yàqante a am temps di sosalante bañ a am temps toog kanamu kilifa di fa tudd sa moromu taalibe loolu taalibe bu ko def taalibe bu doy di nga taalibe bu doy di mooy taalibe bi dem ci kanamu sëriñam amul lenn lu muy xalaat di ko yóbbul ay bi mbokk taalibeem donte sax sikk nañu te li ci ëpp ci li ñuy wax ay kàcce rek la ñuy doon dem ci sa moromu euh, sa kilifa di fa sosal sa moromu taalibe taalibe bu ko def rek ku doye di nga nag ak koo mën a doon ak garaat bu mën a am rek ku doye di nga kon yàlla yàlla may ñu toujours ñuy dox ci eh, rafet njortu dox ci défendre suñu mbokk taalibe ne mag ñi sax daanañ dem ci dëkk yëg ne seen mbokk mu xadam ñi nga fa ñu bàyyee ko dëkk bi dem ci beneen dëkk ndax rek bañ ay àq dox seen diggante léegi nag da topp sa mbokk taalibe di ko sosol di ko di ko jaxase ak ay kilifa te yooyu yëpp day delluwaat rek ci matadi ak doyadi yàlla nañu yàlla musal ci yooyu taxawaay ñi ngi nuyu ñëpp di ziara ñëpp dañuy bàyyi rek xaaju nooy mu mu tàggatoo li li sëñ Abdou Alamine Alamine do wax naan naan naan lu doyadi di may moom du ko am <laughs> nee mom lu doye di di may du ko am xam nga xam nga par exemple man limay limay wax chaque jour moy talibé yaakaar naa boo toogee boo toogee sa serigne sen waxtan lan la wara nek moy sen walu sa yow sa walu tarbiya ak noy def ba defaru ci kanamu ki la yalla bolel ak aussi nan ngay def ba manam yene yi wala bok eh, taxway bi njabot wara taxaw ci kilifa nga taxaw ko mais eh, pa tok ci ci ce kilifa di di tal sa mbokku talibé te seigne Abdou Alamine dégg nañ ko bataay mu wax muni muni mom su su mbokku taalibeem si mee dàllam mën na koo teel nee na mbokku taalibe bu ñu tegee benn chaise dama koy bàyyi kooku mu tok man man ma tok ci suuf mu ni bu ibé buntu bunt damay dellu ginnaw bàyyi ko mu dugg sëñ Abdou Lamine la dégg mu wax lolu wa léegi ki nga xamante ak sëñ Abdou ki nga xamante ni moom mooy Abdou mo saña bàyyi mbokku talibam ak chaise mu tok sañ ko teel dalam sañ ñu ibé buntu mu bàyyi ko mu dugg mais buñ est-ce que ñun buñu ci mom dinañ xalaat dem suñu kilifa di tuddu nit wala naan ko sëñ bi taalibe de sàngam de taalibe sàngam ba pare aussi par exemple da ngay gis euh, comme ñun tey taalibe lu lu lu mu baax le da nga ko koy nëbbal maanaam taalibe bu defee lu baax yow da nga koy nëbbu doo ko wax doo la intéresse donte moom xaaru ci loolu mais boo juumee ba def faux boo juumee ba def faux pas après na ku nekk profité naan waaw ah moom koy nangam nangam ah moom koy nangam nangam sëñ Abdallah mi dafa waxoon mu ni mu ni sa mbokk taalibe même su juumee nee na yow yedd ko nee na boo ko boo ko yedd yedd ko ci biir néeg te boo génnee bul bul ko wan ne maa la yedd parce que nee na mat mat ak matadi dañ koy ayantoo nee na nit bu defee lu matadi jàppal ne yow zéro bi yaa aye mat nga dimbali ko parce que dafa matadi nee na bis dina ñëw yow itam nga aye matadi gi moom mu mat moom moo lay dimbali. waaw mu ni nag ay mbokku bi bu ñu ànd ànd bi ànd dimbalante la war a nekk mooy ku nekk xaw a tane sa morom ci jikko wala boog ku ne tane sa morom ci xel mais bu dee ànd boo xam te ni maa yow ñoo bokk sëriñ d'accord waaye bu mu xëyee luy nekk sa gàcce wala lu lay yàqal wala lu lay booleek nit ñi maa koy dox kooku yow même boo nee sëriñ bi nga gëmit xam nañu gëmoo sëriñ bi parce que nit boo boo dee yéen da ngeen ne da bokk ki ngeen bëgg ngeen bokk ki leen yàlla booleel yow au contraire yaa waroon fekk kii am problème nga fexe ci problème mais waroo fexe kii nga bokkal sëriñ wala bokk ki nga ni bokk sëriñ ba pare nga xam ni kii dafa yor mission di ko doxal yow sa yite mooy faqa faqasal mission bi muy doxal léegi yow dañuy lañuy laaj ndax yow mission bi moo la intéressé wala kër gi moo la intéressé wala sa bakkan parce que bu dee kii li muy doxal kilifaam la koy doxal ñëpp xam ne kii li muy dox kilifaam la koy doxal yow sa yite yëpp mooy gàllankoor ko ba mu yàqu boo ñu waxee nga ni kilifa gi maa ko bëgg damaa bëgg kilifa mais dañuy xam ne waxu dëgg parce que kilifa boo ko bëggee même bu yónnee bant sax ne bant bi laa yónni yow boo ñëwee ci bant bi xam nga looy def mooy jël ko sang ba mu set teg xam ne sa kilifa moo ko yónni tey kii ñu ci yàlla boole muy moom lañ ci gën a miin parce que moom la ñuy toog ëpp lu ñu toog jotaayam moom kooku tudd bu waxee ci moom danga naan xanaa sëñ bi kii moo ko jox werde parce que day am yëg-yëg ak naweel gum gum gum la gum def ci moom ba yow boo fa jógee da ngay gën a sopp kooku ñun taalibe foofu la ñu war toll maanaam sëriñ si ni ñu doxalee mooy koo tudd ñu wax ci mu xoole sëñ Maodo si sëñ Maodo si boo tuddee sëñ Abdou Lamine day daanu boo tuddee sëñ Babacar Si Mansour mu ni ak a baax sëñ Babacar Si Mansour boo tuddee sëñ Baye Abdou mu seede ci moom koo tudd mu seede ci moom mais kooku kenn bonul ci moom kenn bonul ci moom koo wax mun la dafa baax parce que moom niveau am lay àttee nit ñi léegi ñun taalibe foofu la ñu war a toll maanaam sa mbokku sax bu dee dafa jum nga nangul ko jum tam xam ne nit moom matadi nga bàyyi noonu wala boog boo koy yedde nga yedde ko mais ku nekk yaa ngi xaar nit def erreur ba nga ne waaw pourtant moom kay nangam te amul loo amul njëriñ yokkaluñ dara waaw man li ma gëm mooy ku nekk si ñun ambassadeur nga si tarixa bi ambassadeur ambassadeur nag bu nekk ku nekk si tarixa parce que yow équipe équipe dix dix ñooy ak 10 ak góol bi mais bu benn manqué équipe bi day néew doole mais ñu ñiy doxal boo ci boo ci damee laafu kenn équipe bi day gën a néew doole bu dee yow équipe bi moo la intéressé doo def loolu da ngay fexe kay 11 yëpp joué fa tabarakallahu di wax itam di la sant yow xaaj wi laan di la sant bu baax di la gërëm di nuyu itam euh, mbokku taalibe yi nga xamante ni macha allah ñoom la ñuy nekk ndool ci Facebook bi nga xamante ni sunu ay mbokku taalibe lañ sun ay waay lañ macha ñi gën a nag xam ci célibataire yi nga xam tani moom <laughs> ñoom sama ñoom la ma yàlla boole nga xam dama leen laxal <laughs> yooyu maa leen di ziar bu baax di kontaan ci émission bi macha allah ah, di wax rek di ñaanal itam Serigne Babacar si Mansour hazwilan parce que keroog bi mu joxee président parfum bi mais parfum mu ngi def mu ngi def mu ngi def buzz si dëkk bi macha allah konak ah, kon nag euh, yàlla na yàlla guddal fanam yàlla mayal ñu ko wér yàlla sàmmal ñu ko itam ñun itam en tant que ay njaboot taxawaay yi ñuy yi ñuy yi ñuy jéemantu ci kër gi yàlla defal ñu ci ndam itam li ñuy def yëpp nag wax dëgg yàlla yàlla rek a tax ñu ci ñu ñu ñu ciy def parce que xaaruñu si dara waaw yaa ngi gis ñun ñu fi ñu fekk nii ñu ngi bu ñu xëyee dañuy daw dépense waaw nekk suñu activité boobu. xadara bi tarbiya rek lañ ko def bu tarbiya bi jeexee ñu simmi mbubb bi teg ko fee sol mbubb <laughs> daw ko du dépense <laughs> comme li sëñ Babacar moo waxoon ne xaw ma laazim wasifa xadaratul juma daw dépense loo ci yokk tardé ah ñun nag wax dëgg yàlla ñun moom ñu ngi ñu ngi ci loolu ah, yàlla na yàlla saxal ñu ci itam di sant mbokk yëpp di leen gërëm ah, macha allah di sant itam sunu kilifa gi nga xam te ne moom lañ yàlla booleel nag monsieur Abdou ah yàlla na yàlla guddal fanaan nag si si Malick yàlla na yàlla sàmm ko. yàlla kàttanal ko parce que taxawaay yi mu am si ñun nag macha allah am na solo trop wax dëgg yàlla ah, yàlla na yàlla guddal fanam way juróom ba tamit Serigne Sidi Ahmed yàlla na yàlla yokk leeru bàmmeelam Serigne Sidi Ahmed tamit macha allah moom it kenn la woon si ñun. waaw kenn la woon si ñun xëy na ñun sax du ma wax comme parfois nit ñi da ngay dégg ku ne man dama ko miinal man da daan naa fa dem nag mais miinal googu taxul ma miinal ko wax dëgg yàlla waaye daal eh, góor gu baax la woon macha allah yàlla na yàlla yokku leeru bàmmeelam njaboot yi mu fi bàyyi mbooloo yim fi bàyyi yàlla yàlla gën ko dëgëral gën ko sàmm yàlla defal sutura njaboot maam Cheikh Seydi Hadji Malick yëpp ah li sëñ Abdou waxoon rek sëñ Abdou Lamine laa déggoon mu ni mu ni boo ñëwee ci kër ñu yaatal la def la ni seen bopp nee na yow it xamal fooy yam ah kon nag yàlla yàlla ñun may ñu ñu xam fu ñuy yem ci kër yi xam lii suñ farata ñu nekk ci te itam li may wax ne am na koo xam ne chance la mu yar la parce que bu la yaree dina fexe ba lu ne nga xam ci foo ci yem kon nag yàlla yàlla defal ñu chance boobu yàlla def jàmm ci njaboot Seydi Hadji Malick def jàmm ci taalibe yàlla sàmm leen aar leen ziar général bi ñu jëm yàlla defal ñu ci barke ba li sa ñab du waxoon ne booy ñëw Tiwaawoon da ngay mel ni Firawna booy génn mel ni Moussa yàlla na yàlla boole ci ñi nga xam te bu ñuy génn Tiwaawan dañuy set ci bàkkaar yàlla yóbbu ñuy dem si jàmm ñëw si jàmm incha allah ci barke Serigne Babacar si mi nga mooy borom ziar général bi incha allah ak mbooleem njaboot maam Cheikh Seydi Hadji Malick yëpp maam Alaaji Mansour maam Abdou maam ak seen doom ñëpp macha allah yàlla yàlla yokk seen leeru bàmmeel ñi fi nekk yàlla yàlla bàyyi leen fi ba yéene yi nga xam te ne moom lañ am seen kër maam yëpp yàlla yàlla defal leen ko di ziar sunu soppe sunu lépp sëriñ Maodo si Dabaax sëriñ Babacar si Abdoul Aziz ak mbooleem njabootu maam Cheikh Seydi Hadji Malick yëpp parce que association bi itam allah ku nekk ci kilifa yi kër gi képp ku fi nekk sa njaboot dañoo bokk ci biir association bi kon nag ku nekk ñu ngi jël sa loxo di la ko tegal sa loxo kilifa ci mbooleem njaboot maam Cheikh Seydi Hadji Malick si radiyallahu taala anhu yëpp wilaan kon bokk ñu ngi noonu général incha allah yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm lépp lu ñuy xaar ci ziar yàlla defal ñu ko incha allah di wax aussi tamit mbokk yi ñëpp ñu jàppale ñu ci opération taxawu gan yi ñuy def ndax soxla nañ ko nag wax dëgg yàlla yàlla yàlla mottali yéene yëpp incha allah jërëjëf mbokk yi kon loolu moo doon suñu gan tey ñu woon fii tey nemmeeku ko ngir waajal ziar général Hadji Noël Sarr xam nga bi mooy suñu ñaaru ñaareelu jàkkaarloo ak moom ndax nit la ku tey nit la ko nga xam ne ay waxam kenn du ci gaañu bi ci des mooy ku am solidarité la ak mbokku taalibeem toujours léeg-léeg rek bu nit juumee sax dana la woo ci suuf jox la xalaatam du la ko wax ci kaw ak yu mel noonu yooyu lañu war a roy yooyu lañ war a encouragé waaye dafa am lu benn mag waxoon ne sëriñ kenn du ko dar dañ koy darle sëriñ fu mu tourné nga ngàbbal koy dàllam fu mu sukkee ci ndam nga bokk kook moom fu mu saqatee nga ne yaaram kallaaw te bu këram tasee yaa ko tas amul sens tabaarakallaahu fexe ba sori ko te saa boo gisee moom muy farata saa bu soxlaa yaa cay man loolu la ñuy doy taalibe mooy da ngay darle sëriñ bi waaye doo ko dar fa tabaarakallaahu am na ñoo xam ne bu ñu sukkee ci boolu sëriñ bi di añ lu yàqu ci kër sëriñ bi fa lay yàqoo am na ñoo xam ne bu ñuy téye seen téléphone yi woo sëriñ bi dañ am ne saa bu ñu xëysee sëriñ jaar wax ko ci jàmbur wax ko ci taalibe sëñ Babacar Sylla dal daal waaw am ñu sele seen woon nañ ñi buñu bu ñu ma xëyseeti ndax ah, na am na ñoo xam ne bu ñu la xëysee rek doo naan sa loolu alaaji Mansour Mbaye la ko waxoon fa tabarakallaahu kon yàlla yàlla may ñu ñun daal bu ñuy séq ak suñuy buñ leen yóbbul mukk suñu mbokk taalibe di leen jaxase ak di leen di leen jaboliser yal nañu ci yàlla musal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.